beneen ndaw itam bu bokk ca fa di député bi di Cheikh coro Mbacké moom mi nga xam ni sax moom mooy coordonnateur bu Pastef Touba daal nay àddu itam jëm rek ci dooleel bi nga xam ni mi ngi koy def ci man Sonko di ko rek bind ak message di ko wax nag fi mu nekk nii moom ma ngi koy jàppale rawatina ci projet ba nga xam ni moom lay wëyal moo waral foofee ca Touba képp koo xam ne dafa bokk ca Pastef rek moomee xam na la te dina rek waxanteeg yow rawatina militant yeeg sympathisant yi ba tax na lu jëm ci wàllu nag solidarité ba nga xam ne ma ngi fay doxal moomee du ko bàyyi benn yoon ndax li ko ñor rek mooy xeex nag mbir mi te mbir moomee ngir xeex ko nag mbooloo la ñu soxla te mbooloo mais nag yeewu nañu xam nañu te ñu ngi ñu ginnaaw di ñu jàppale ndax Ousmane Sonko xam loolee xam ne rek ki la di Macky Sall moom. amatul fi dara jeexal na tàkk amatul sax ab ay projet incha moom moom dina fi daal di rek ñu daal koy xeex euh, ci 2024 bi leen ca noonee sax moom euh, ma ngay daal di rek woo képp koo xam rek coordination la bu Pastef ak sénégalais yi nga xam ne ñoom li rek mooy wàllu liberté ak justice rek boo xam ne euh, moomee dafay yoon ci ma ngay wax ni nag nañu booloo rek doon benn ngir nag ñu soppi Sénégal ci guuta gi nga xam ne rek ci la daal di dugg ndax loolee mooy waxal nag li ñu bëgg rek ñu daal koy am.